mbokki internetu Mak TV euh, Sénégal nuyu nañ leen amaat euh, mbégte àndaat ak yéen comme ni ñu koy amalee bés bu jot rek euh, ñu fas yéene na dégtal xibaar yi. li si euh, gën a fës tey dañ koy nag euh, daal di tàmbale ak luy yees li nga xamante ni moo soxal euh, ñaari doomu ki nga xamante ne rek moo di Moustapha Meng député maire boobee nga xamante ni moo nekk foofee ca Kër Massar nga xam ne nag ndiki démb ñaari doomu jigéen yooyu nag dañoo doon génne woon benn xibaar daal di xam ne rek dañ leen woon loolee nag am na lu yees noo xamante ni daal na siy judd ndax kat bu ñu sukkandikoo ca xibaar yi nga xamante ni daal di nañ koy am ñaari doom yooyu nag kenn koo xamante ni rek am xameel la moo xamante ni bokk na ci seen famille boobee nag moo leen jëloon daal leen rek euh, yóbbu woon euh, seen kër ñoom sax ñuy daal di xamal ni euh, li nga xamante ni moo di yóbbu boobee moom moo ko rek daal di def gannaaw ba nga xamante ni rek tàggu na maanaam ki nga xamante rek moo di seen yaay maanaam soxna ki nga xamante ni moo di kii di Moustapha Meng ba moom sax moo ko joxoon accord moo leen joxoon accord pour rek mu daal di yóbbu ñaari yu jigéen yooyee foofe nga xamante ni mooy ca këram noon gannaaw gi nag moom mujjee na leen sax daal di andiwaat kon nag mu mel ni li ñu doon tiit mujjeewuloon am ndax kat xale bu jigéen maanaam kooke nga xamante ni sax moo yóbboon xale ye mujjeewaat na ko andi fi nga xamante ni mooy euh, seen euh, biir kër moom sax xamal leen rek moom moom mi ba muy yóbbu xale yooyee euh, kii di soxna sa kii di Moustapha Mbengue d'accord na si kon nag mu mel ni liñ doon tiit yëpp amul ca boobee mbir kon nag mën nañ jàpp ni disparition ak enlèvement bi nga xamante ni moom lañ doon wax mujjewul am ca boobee mbir. ba tey ci xibaar yi ñu daal di nag addu wax ci leneen wax nag ci li nga xamante moo xew fa li nga xamante ne rek mooy ca euh, yëmbal foofee nag benn père de famille bu ñu naan es ay dara moom nag moo daal di jàpp ñaari xale yu jigéen yoo xamante ni moom ay doomam la yoo xamante ni daanaka euh, kenn ki mu ngi am 16 kenn ki am rek 17 euh, ans moom nag ñuy daal di xam ne ni moom daanaka lu tolloo ko fukki at mu leen jàpp rek di leen euh, sàqu moom moomee nga xamante ni moom moo jur xale yu jigéen yooyu gannaaw nag ba nga xamante ni laaj nañ ko lu waraloon boobee mbir moom nag dafa jàpp ne rek affaire mystique moom moo taxoon muy daal di def li nga xamante ni moo di acte yooyee ci kaw ñi nga xamante ni rek moo di ay doomam moom mi nga xamante ni moo di Aidara nag a mi nga xamante ni mu ngi commencé woon sax euh, di violer xale yi daanaka ba ñu amee lu tolloog rek euh, huit ans moom gannaaw ba nga xamante i euh, ay parties ba def li nga xamante ni mooy acte yu ñaaw yooyu nga xamante ni rek moom la ñu daal di jàpp ni moom la doon def ci ñaari xale yu jigéen yooyu moom nag gannaaw ba nga xamante ni yóbbu nañ ko ca kanamu procureur ba li mu rek daal di xamle mooy que ni moom moomee xamante ni mooy waajuram boobu dafa rek daal di nii maanaam dafa rek daal di weddi euh, li nga xamante ne rek moom la ñuy wax ni moom la doon def ci euh, ñaari doom yooyee moom nag mu xam ne rek ni euh, loolee ñi nga xam ne dañu naan da doon rek daal di dem ba egg si xel doom yooyee moom daanaka daanu woon def waaye nag teewul daal dañ koy yóbbuwaat ci li nga xamante ni mooy ca parquet ba jamono ji nag ñuy wax ak yéen daanaka mu ngi sax ca loxo yoon mu nekk nag lu doy waar loo xamante ni mu nga xewee foofee nga xamante ni rek mooy ca yëmba la xibaar yi ba tey ñu daal di rek euh, addu wax ci euh, leneen wax tamit ci lu doy waar loo xamante ni. mu nga xewee fa nga xamante ne rek mooy ca euh, Rufisque foofee nag benn euh, maire de famille boo xamante ni nag moom moomee daanaka da sax daal di sëy moom la rek benn ex copain daal di rek jël ay photom ak ay vidéo am nag daal di koy euh, partagé si nga xamante ni mooy ca réseaux sociaux yi kookee nag nga xamante ni mooy mère de famille boobee nag nga xamante ne rek daanaka jamono ji nag am na ay doom yoo xamante ni mu ngi rek di leen uuf foofee nga xamante ni fa rek daal di sëy ki nga xamante ni nag moom moo di ex copain bi nag moom moo rek daal di jël li nga xamante ni moo di ay vidéo daanaka ñoom ñaar dañoo nekkoon rek di sëy daal di kay euh, publier ci euh, réseaux sociaux ba tax na bu ñu sukkandikoo nag ci euh, bi di réew mi quotidien moom nag gannaaw ma nga xamante sax moo daal di xamle boobee mbir mu ngi daal di xamle nag ki nga xamante ne rek moo di ex boobee dafa mujjoon rek jël li nga xamante ni mooy lii di vidéo yi daal koy dugal li nga xamante ni moo di réseaux sociaux yi daal di koy sax nga xamante ni moo di ay xaritam moom moomee nag gannaaw ba nga xamante ni nay rek wax ci di euh, soxna si moom mu daal di koy fekk si këram loolee nag ba mu ko daal di bañee noonu nag euh, euh, moo moom moo daal di wax loole ca kanamu rek nga xamante ni ñoo di waa tribunal ba moom moomee nag nga ni moo daf boobee jëyee nag moom dafa doon jéem a weddi li nga xamante ni moo di mbir moomee waaye nag teewul ñii di waa ñii di waa tribunal ba moom daal nañuy sàkku rek ci moom ñu rek daal di koy daan ndax moom moomee dafa doon weddi li nga xamante ni moom mooy euh, li nga xamante ne rek moom la daal di def euh, maanaam gannaaw ba nga xamante ni nag taxaw na ci kanam enquêteurs yi dafa rek daal di bañ li ni moom lañ koy toppee waaye nag gannaaw euh, ci première enquête préliminaire moom nangu woon na ne rek lii nga xamante ni moo di image yooyu partage woon na ko benn xaritam bu ñuy naan MC nag gannaaw ba juge bi moom ñaari di ñëw moom rek da ko mujjee rek daan lu look ñaari atum kaso yi nga xamante ni daanaka benn weer rek caractère euh, personnel et division d'image euh, contraire aux bonnes euh, mœurs. si xibaar yi la ñuy desandi ba tey wax nag ci wàllum politique wax nag jamono ji ci ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko mi nga xamante ni moom jamono ji sax mu ngi amal ab conférence de presse maanaam di jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñoo di waaye taskatu xibaar yi loole nag mu ngi amal fooy nga xamante ni mooy ca Kër Maodo moom Ousmane Sonko nag war a ñi nga xamante ni ñoo di rek taskatu xibaar yi daal di addu sax ci li nga xamante mooy décision bi nga xamante xamante ni moom la rek daal di jël ci li nga xamante ni moo di charte de la non euh, euh, violence moom moomee nag Ousmane Sonko war a rek daal di jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñoo di taskatu xibaar yi pour rek daal di xamal lan moo tax rek mu daal di bañ a rek signé boobee euh, charte kon nag du ñàkk ñu ñëwaatal leen ca boobee xibaar ak li nga xamante ni moom mooy ruus ca boobee conférence de presse ci euh, pacte boobee sax la ñuy desani maanaam charte boobee sax la ñuy ni euh, charte boobee nga xamante ni moo di charte de la non euh, violence moom nag gannaaw Ousmane Sonko am na ñeneen ñoo xamante ni ñoom daal nañuy lànk ni duñ ko rek daal di signé ñooñee sax di waa ñoo lànk ñoo lànk nag daal di lànk rek ni duñu daal di signé boobee chart ñoom nag ñu ngi daal di sukkandiku ni rek ñi nga xamante ni ñoo di waa sudis dañu rek daal di bañ a dugal ci li nga xamante ni mooy ca boobee charte li nga xamante ni rek moo di troisième mandat wu ki nga xamante ni rek moo di njiitu réew mi ba tax na rek ñoom ñooñee sax loolu lañ daal di jël euh, comme euh, prétexte daal di xam ne ni nag lu tax ñi nga xamante ni ñoo di waa sudis nanguwuñoo rek daal di inscrire li nga xamante ni moo di euh, ni moo di Macky Sall ci charte journal bi Les Échos ñooñee nga xamante ni waa ñoo lànk ñoom daal nañuy bañ rek daal di signé ci li nga xamante ni moo di charte nga xamante rek dañoo jàpp ni moo di charte de la non violence comme ni ko defee ñoom it nañuy euh, deltu gannaaw ca euh, boobee charte ba tey rek euh, ci xibaar yi ñu daal di nag addu wax ci leneen wax nag ci lu soxal ki nga xamante ne rek moo di Landing Missane Seck ñu gën kaa xamee ci kilifa nekk membre ca Y'en a moom nag gannaaw ba nga xamante ni mu ngi foofee ca kaso ba lu tolloog ay weer a ngi nii moom nag ñu ngi daal di xamal ni daal di nay rek entamé li nga xamante ni moo di grève de la fin pour rek daal di sàkk ñu daal di kay may li nga xamante ni moo di liberté provisoire gannaaw ay demande yu bëri yoo xamante ni daal nañ koy rejeté ci ki nga xamante ni moo di Alioune Tine Alioune Tine moomee nga xamante ni moo di fondateur d'Afrikajom Center moom nag mu ngi daal di xam ne ni euh, kii di euh, kilifa nag depuis euh, boobu ba tey depuis démb mu ngi rek daal di en bi li nga xamante ni rek moo di grève de la faim bi nangul lekk ci li nga xamante ni moom lañ koy daal di yóbbul te moom sax jamono ji rek ñi nga xamante ni ñoo di ay famem mënuñu ko rek daal di jàkk maanaam daat ñu mënuñu ko rek daal di jot ba tax na moom moomee sax mu ngi sàkku rek si ñi nga xamante ni ñoo yor wàllum yoon ñu daal di fexe rek xool nan lañuy def par rek daal di euh, kay euh, jox li nga xamante ne rek moo di euh, liberté provisoire bi nga xamante ni depuis booba tey mu ngi rek daal di sàkku ci nag ki nga xamante ni moo di Simon moom moom nga xamante ni ñoom ñaar ñoo fa rek nekkoon woon ak ay maanaam barki démb rek lañ ko rek daal di accordé li nga xamante ni moom mooy rek liberté provisoire bi nga xamante ni moo ngi ko daal di am sax gannaaw face à face bi nga xamante ni moo ngi ko doon am ak ki nga xamante ni rek mooy juge ba par contre nag ki nga xamante ni moo di kii di kilifa moom depuis booba tey moom mu ngi rek ca kaso ba moo tax na rek jamono ji moom mu ngi rek daal di sàkku rek ñu daal di koy jox li nga xamante ni moo di liberté provisoire bi ci fàttali ba tey rek ki nga xamante ni mooy Simon moom euh, gannaaw ab wér-gi-yaram boo xamante ni dafa woyofoon loole nag bokk na si li tax dañu daal di koy accordé li nga xamante ni moo di euh, liberté provisoire boobee loole taxoon sax ñi nga xamante ni ñoo di waa yaanaamaa tamit daal di ne ni euh, kii tamit nga xamante ni rek moo di kilifa moom it remplir oon na lépp li nga xamante ni ay condition la pour rek mu daal di am li nga xamante ni moo di liberté provisoire bi ba tey ci xibaar yi ñu àddu nag wax ci lii nga xamante ne moo di wàllum wér-gu-yaram wax nag ci tolluwaayu mbas mii di coronavirus euh, dikki tey nag ñetti doomu aadama la ñu daal di xamal ni ñoom ñoo am lii di euh, doomu jàngoro bii di coronavirus gannaaw 1153 euh, tests yoo xamante ni daal nañ koy amal jamono ji nag ñu ngi daal di xamal ni moom lu tollook ñaari cas grave ñoom ñoo nekk ca lalu sauvetage ba su dem it amul benn doomu aadama boo xamante ni lii di mbas moom jot na daal di yóbbu gannaaw boo xamante ni mbas mi dugg na Sénégal ba tey wàññi tolloog 73 973 cas positif ca noonee ñu daal di si faj lu tolloog ni ñoom jot nañ see rek daal di ñàkk seen jamono ji ñu wax ak yéen lu tolloog euh, juróom-ñeenti doomu aadama ñoo nekk ca lalu euh, hôpital ya ñu àddu nag daal di euh, wax ci leneen wax nag ci li nga xamante ni moom moo soxal kii di Serigne Bassirou Gueye moom moomee nag nga xamante ni ñu daal di xamal nag daal dañ koy nommé Darmanin lii di euh, euh, ministre euh, conseiller en charge des affaires juridiques ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci journal bi di laas mu ngi rek daal di ki nga xamante moom mooy le nouveau médiateur de la république du juge Demba Kandji ba tax na rek ki nga xamante ni moo fi nekkoon sax ancien procureur de la république moom moomee nekkoon ancien procureur de la république ca tribunal bu grande instance hors classe bu nekk ca Dakar moom moomee nag ñu daal di xamal ni rek daat nay moom sax ki ko remplacer woon moo di ki nga xamante ne moo di euh, Amdi euh, Diouf moom moomee gannaaw conseil supérieur de la magistrature bu nga xamante ni ko doon amal lundi bi ñu génn rek foofee nga xamante ni euh, mooy ca palais de république kon nag ñu jàpp ni kon ki nga xamante ni moo fi nekkoon procureur moom jamono ji di Bassirou Gueye Serigne Bassirou Gueye jamono ji nag ministre conseiller en charge des affaires juridiques bu di nag addu wax ba Parcelles Assainies ñoom nag gannaaw week-end bi nga xamante ni moom la ñu génn ñoom nag ñu génnoon daal di génnee li xamante ni moo di seen ndox robinet yi doon xeele ca yooyee robinet ñoom nag mu nekkoon ay ndox yoo xamante ni daanaka euh, dafa rek euh, jéggi dayoo ci melokaan gannaaw maanaam couleur bu ñaaw bi nga xamante ni moom la àndoon waaye nag odeur bu naqari bu nga xamante ni euh, àndoon na ca boobee ndox loole nag taxoon ba ñi nga xamante ni ñoo di population doon génn rek moom doon naqarlu boobee ndox maanaam loolee nag ba mu xewee ñii di waa seen o moom daal nañuy génnee ab communiqué daal di addu wax ci ab fuite bu nga xamante ni li ko provoqué moo di benn entreprise bi nga xamante ni da doon yëngu ci wàllum travaux euh, publics sur les réseaux d'eau potable ci week-end bi loole nag taxoon ba ñi nga xamante ni mooy fuite boobee euh, daal am ci li nga xamante ni rek moo di euh, qualité d'eau bi nga xamante ni moom moo nekkoon foofee ca Parcelles Assainies ba tax na rek société ba moom mu sax daal di assurer li nga xamante ni rek moo di équipe technique mi depuis hier daal rek fexe ba xool na la ñuy def rek pour daal di defaraat li nga xamante ni moo di fuite yooyu nga xamante ni moom moo waraloon boobee ndox bu bon bi nga xamante ni moom moo doon xew moom moo doon xel li foofee sax nga xamante ni mooy euh, ca euh, Parcelles Assainies waaye it fi nga xamante ni mooy foofee nga xamante it mooy ca Yarax am na ay yenn parti yoo nga xamante ni daanaka lu tolloo ko ay weer a ngi nii ñoom seen ay robine daanaka buñ ko xellee maanaam ay suuf kese moo rek daal di génn ba tax na sax ñoom jamono ji dañuy mujjee rek di daal di jënd li nga xamante ni moo di ay butéelu ndox pour rek di mën naan wala sax di ko mën a euh, toggee ndax ñoom duñu ay suuf képp rek moo siy génn ba tax na ñoom nag mënuñoo naan euh, boobe ndox kon nag mu nekk loo xamante ni daanaka ñoo ngi koy commencé nemmeeku daanaka ci euh, parti yu bëri fi nga xamante ni mooy ci Ndakaaru Njaay euh, Jal Diop loolee sax mooy ndar képp xibaaru tey leen jox dig daje ëllëg ak yeneeni xibaar seen chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te di leen wax toujours bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi pour ngeen mën a am suñu ay vidéo au temps réel